bis bi ñuy waajal nag day bis boo xam ne ndigalu Sëriñ Tuuba la mooy màggalu Tuuba di bis bi gën a rëy ci ñoom ñu yaakaar Sëriñ Tuuba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax ne mooy suñu fête indépendance noonu la ko daa waxee kon bis bi lépp lu ñu am rek ci lañ ko am muy bis bu rëy ñëw Serigne Touba ak santaane woon ko digle ko ne na ko ci ñëpp sant la yàlla suñu borom ci bis bi yàlla def nag ci ñaanam ga ak liggéey bu tedd ba màggal gi dem ba agsi fii ndax bisu ak bay la ndax na mu ko digle woon daale ci dem ci daale taalibe yëpp nag seenu xeer tax màggal gi ak fii tey ba waxatuma la ci yaakaar te mooy li ëpp solo te li ko tax a jóg di wàllu gox lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg yàlla lañ ci yaakaar ëllëg suñu digg suñu Tuubaa ci pay waaye ci wàllu adduna mu dem ba nekk li ëpp doole ci waxuma la réew mi waaye ci Afrique wala li ëpp doole sax ndaje yi ëpp doole ci àdduna ma ne soo ko caay bare muy dugal lu baree bari itam ci wàllu koom-koom muy loo xam ne réew mépp lay jëriñ kon li ngeen tudd tey relancement économique màggal Tuubaa moo moo ci jiitu ndax mën naa ne li ëpp ci nit ñi wala société yu mag yi bu ñu amee luñ bëgg jaay dañ koy xaare màggal bi ngir barkeelu bis bi kon nag yàlla def Sëriñ Mouhamadou Mountakha duñ ci sañ a seq benn jéego ci lu dul ndigalam ab taalibe bi itam du laaj ndigal day toog ba jox ko kon ñun li war mooy toog di xaar ndigalu sëriñ bi bu sëriñ bi santaane ne jox naa leen ndigal ngeen wéyee liggéeyu mag liggéeyu mag li ngeen ko daa defe ci lañ door a tàmbali ndaje yi nag di ko def liñ ci war a def am na ci ndaje moo xam ne jàll na sëriñ Ousmane moo ko jiitoon ni mu ko baaxoo defee ci ànd ko préfet bu Mbacké ñu def ko nañ ko nañ ko waroon a defee séntu ci it lañ ci daal séntu te jii itam gouverneur taxawaat ko ci ndigalu kilifa bi nga xam ne ñoom la fi teewal tàmbalee ko ci ministre de l'intérieur moom bi nga xam ne moo ko jox ndigal mu taxaw ko moom itam mu def ko nag ci ndigalu président bi nga xam ne ci ndigalam la ko defee kon ñoom ñu ngi leen di di rafetlu jotaay bi itam ñu doxee di ñaan itam ñu àgg ci màgg ak jàmm te suñu borom lu ñu mboolem li ñuy tiit ak li ñuy ragal yàlla mosuñu ci.